mbokk internet yi di leen fàtte rek gaay continuer leen abonné abonné leen bu également cliquer ci cloche de notification yi pour a rater benn vidéo di aimer vidéo yi également donc bu leen ko mënee partager tamit ngeen partager ko maa ngi di jaajëfal bu baax. am na ñoo xam ni loolu la ñu bëgg a dégg loolu toogaay ba nga toog noonu croiser sa bras ñu lay waxal ne bul xeex gis nga kaw ko noonu ngay xeex ci nguur gi noonu la toogee lu gën a taw féexee ni nga toogee ndax toogin goo xam ne la sonn ci di am ay millions di gagné ay marché yor àdduna ak li ci biir di faj ay soxlaam gis nga gis nga yow mii bu dee yow lañ mënul déjjati buddi pour nga dem xeexi kon kooku tamit toogin bu mu toogee nooy na ci moom ba nga xam ni boo ko fa bëgg a jëlee boo yaakaaree ne ay négociation la ay waxtaan la kooku ndax nga sa bopp léegi nag dëgg rek moo fi des li nga xam ni Macky Sall moom la tàmbale ba léegi mosu ko bàyyi mi ngi ci ay pexem pexem mooy Ousmane Sonko du dem léegi nag moom xam na ni bu ko jaaralee ci ay droit bu ko jaarale ci justice day ñàkk parce que ñëpp xam nañ ni amul justice war a droit bu war tere Ousmane Sonko dem ci élection mu génn jaay doole waaye léegi jaay doole nit buy jaay doole nga ne yow doo defanteeg moom nga bëgg a gëmloo nit yi ne yow am nga beneen solution boo mun dul jaay doole ci kaw ku lay jaay doole yow mii xam nga ni boo waxee loolu da nax sa bopp yow mii di wax nii ku la tegaloon kaamil nga ne yow bu kenn xeex toog leen xaar ku la tegaloon kaamil doo waat munoo teg dara loo xam ci loxo sénégalais yi ne yow da nga leen wax toog leen xaar parce que leen yow moomu sax di leen wax toog leen xaar bu leen xeex daf leen nangam wallahi xamoo suba sa dara xamoo lenn luy xew kon da nekk di négocier <laughs> sa sa dund da nga nekk di négocier sa bakkan da nga nekk di négocier sa ker mais yow xam nga ni xam que yow xam munoo teg dara ci loxo sénégalais yi comme quoi moo tax dañ naan leen rek toog leen bu leen xeex daf leen dànk mais ñoom boo leen xool sax xam ni boo leen demee lox leen gis nga affaire yi dafa yàgg dafa am nag ay vendeur de rêve depuis tàmbalee xeex bi Ousmane Sonko gars yi koy waajal tëj gars yi non duñ ko tëj non am ñu génn non gars yi dañuy ñoom moo dañuy yàq xel yi non non kenn du ko tëj kenn du ko tëj ñu ne ko waaj di daj këram génne tëb miir yi gars yëpp daw kët ñu génne dóor ci kaso bi. ñi ñëwaat gaa yaa ngi lijjanti ñi ñi ngi bëgg génne turam ci kii gaa yi ñëw gaa yi ñu ngi bugg a lijjanti génne pour génne turu Ousmane Sonko ci liste électorale non non ñoom Mollah dañuy manipuler non bu leen leen déglu déglu leen parti bi concentré wu leen ci parti bi non parti bi lu ñu wax ay waxu yàlla la waxu yenentu la kaamil la alxuraan la bu leen ko bu leen keneen gaa yi nekk di kuc kuc ba rocc turam dëll sànni fi nekk nii ñu nga taxawaat moom boobu ñi leen di wax ñi gaa yi ngi rocc tur bi ñu naan non boobu ñu ngi werante gars non bu leen déglu ñii déglu leen parti bi ñu naan non suñu plan A la amul la ñu rocc tur tegee nel ñu génn génn leen xeex génn leen xeex génn leen xeex gars yi génn leen xeex ñu non dal leen dal leen amul xeex non dal leen amul xeex dañuy dem justice dañuy dem justice conseil constitutionnel dañuy dem conseil pouvoir bi dañuy dem fii cour cassation cour de kii cour de compte cour de rek def nangu leen dégg génn leen xeex ok gars yi demaat gars yi dóor vendeur de rêve yi nekk moom xam dañuy nalaloo peuple bi rek nag sax ni ñu ngi nalaloo peuple bi gars yi tëgg wëndeel dóor ne Ousmane Sonko du dem ñu DG def noonu la ba léegi ñi ngi ñi ngi nekkaat ci net bi di nalawal gars yi te amuñu dara luñ teg ci seen loxo ñi ngi tawgaat naan Sénégal non xeex bi non leen dal leen kenn xeex non toog leen toog leen toog leen mais dem leen laaj leen lan moo tax ñoom ñu leen ngeen toog leen lan lañ teg seen loxo ñuy bind naan leen toog leen lan leen teg ci seen loxo Sonko ci kaso bi mënuñu ko génne plus de mille cinq cent yi ci kaso bi mënuñu leen génne benn seen wax amul impact mënuñu wax ba peu nguur gi daw mënuñu teg dara seen loxo munuñu jël liste turu Ousmane Sonko dugal ko ci liste bi mënuñu dem jaayi doole xeexuñu mais ñoom lan léegi lan lañ leen proposé ñoom ñi leen di wax non bu leen xaar non toog leen non kii non c'est que boo leen defee noonu Macky Sall loolu lay xaar Macky Sall xaarul loolu Macky Sall newul sax ci loolu yow Macky Sall boo xeexee yow nee nga boo xeexul Macky Sall jël nitam mu toog <laughs> moom mooy mu toogaat Samba Demba la boo xeexee new nee nga boo xeexee Macky day toogaat boo xeexul. Macky Sall toog parce que day teg fii nitam <laughs> perte nga de ba léegi perte nga boo xeexee nga ne Macky day toogaat perte nga boo xeexul Macky Sall teg fii nitam perte nga ñaari perte nga perte perte moom ala kuli àll donc ki lay wax naan noo bu leen xeexee mais kooku na leen tegal dara ci loxo lan la xam lan la xam luñ xamul lan la yëg lu ñu yëgut fan la dugg dugg fa ba maîtriser ni lii la Macky Sall bëgg a def moo tax mu ne gars yi bu leen xeex.